waaw salaamaaleykum baay Ndiaga Fall maa ngi lay nuyu mon frère mon ami maa ngi lay bëggee di la jaajëfal di la ñaanal jàmm di nuyu sunu téléspectateurs yeeg téléspectatrices Asfiyahi yi yëpp ak waa Ovision di leen jaajëfal ñoom itam bu baax a baax di ñaanal réew mi jàmm maa ngi tudd Siré Diakhité euh, lan laa sax ci bergerie alhamdulilah léegi xamatuma ci xanaa nga jàppale ma ci soit maay taaw wala maay caat wala daal am na lu ma ci doon waaye maa ngi bokk ci. ñiy doxal bergerie alhamdulilah maa ngi nuyu éleveurs yëpp di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm. Siré frère bi moom normal na parce que lii laa doon ñaan yàlla mbir boo ci nekkee di ko doxal yàlla dogal nga am ñu la ko bëggale ñëw di la ci jàppale. que ce soit des petits frères wala des associés ou des amis ñëpp ñoo bëggale la ko loolu alhamdulilah kon yaa ngi yaa ngi ci lu njort nañu ne yaa ngi ci lu yàlla gërëm kon yàlla ko yàlla gërëm. Euh, tey bergerie bi macha allah moo tax ma lay laaj sànq di la tooñ tout au début naan lan laa ci man xamatuma sax fan laa ci féete ndax koo xam ne boo moomee itam bala ngaa bala ngaa def tàggu ah looy def itam du ñàkk donte sa rakk bu ndaw ndaw bi la moo la ci xelal kon kay yow daanaka yilif nga waaye dañ laa yilif en partie te loolu lañ doon ñaan yàlla te ku yokkul itam laa wàññi loolu sant yàlla la ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax a baax maa ngi lay béggee lu bëree bëri. fii nag yàlla dogal na macha allah nin nañu ko. Euh, defe na lu toll ci fukki at ñoo ngi exposé chaque année bu Saladam amee macha allah euh, changement bi am na alhamdulilah am nañu yaakaar ci équipe bu bees bu fi nekk te itam macha allah tas suñu yaakaar doxal nañ ko xanaa di leen ñaan rek yàlla bu puso di leen ñaanal yàlla yàlla bu puso bi reer seen gannaaw li ñu nal laa lañ ko mottali te mottalee ko sago vraiment macha allah bi pour une première wax dëgg yàlla c'est satisfaisant té comme dialon nañ ci sectoriel yi mu xawone am quelque lool mënut ta ñàkk itam ah, parce que guñu won mais liñ leen reprocher won rep jël nañ ko en compte ba tay wax dëgg yàlla doxal nañ lo xamné xelu ñëpp dal na et puis ñëpp kontaan nañu ku fi ñëw dal té di passionné rek saxal machallah macha allah sa xol sedd na. waaw euh, fan yële ci ginnaw génne woon nañ ko ci ben foire bu amoon xaar yalla mo amoon performance yu baaxa baaxa baax mais malheureusement dafa joggé bo boo préparé wu ma ko bokkul sax ci sélection bi ñëw ndax jot naa jotoon naa publier sama sélection mais dafa ñëw ba fi li ma lay waxee tam man damay am sama décision mais tamit xalé yi ak associé ñëpp am nañ seen décision bopp bi ma koy indee fi ñu ne ma jàmbaar lañ dugg mu ñëw. boo seetloo xar yi fuddeen naa leen moom fuddeenuma ko bon ñu delloo bi may indi woon indi jàmbaar te soit logique la tamit ah macha allah malgré méforme bu ndaw bi mu am te feebar moo ko tegoon mais là alhamdulilah comme tane na dina delluwaat ni mu menoon ci ni mu gën a gaawee te dina génnaat euh, pendant les prochaines fois incha allah. waaw sant yàlla sant yàlla ndax mënoon naa gën a métti waaw suñu borom mi ma leen joxoon moo leen jële waat samay loxo euh, te sant nañ ci bu baax yàquwuñu tam. ndax baleen leen fi yàlla bañ fi nekkee jot naa ko bokkal ñi ma yàlla booleel ba mu xawoon yaatu as néew donc liñ fi bàyyi lañ ci ñaan yàlla def ci barke rek bu barkelee rek dund dund gu gudd amul dund barkeel moo am dund moom lu mu gudd gudd bu barkeelul amul njëriñ waaye lu mu gàtt gàtt itam bu barkeelee rek fa tabaarakallaahu mës naa dégg sama benn kilifa muy jël exemple suy may may sax jaar ci profité ci occasion bi di ndokkale suñu mbokk murit yëpp ci màggal sunu maam soxna Jaara so bii soo a jàll ñu ci doon jël exemple naan 33 ans rek la dund waaye xoolal tey ma déjà ci exemple mooy benn jigéen bu am màggal ak yeneen détails yoo xam ne donc dund dund bu barkeelee rek gudd na te xam naa ne loolu dal na monument ak jilaan yëpp te ñaan yàlla seen ginnaaw sedd yàlla na ko yàlla def macha allah. bon li may tëjee moom comme yàlla dogal na ñu commencé si bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ci cappaandaw bi di waaj a jeexal daanaka suba rek ñu dese ñu ñaan yàlla mu jeex ci. alhamdulilahi rabbil alamin te di ñaanal exposant yëpp ñu dem gannaaw gaaw gaaw jàmm yéex jàmm jàmm ci la lépp xaj ñu jëlee fi jàmm fekk fi ñu jëm itam jàmm ñii di dellu ci région yi aussi ñu jaajëfal leen parce que dafa métti vraiment ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax nekk fu nekkul Dakar ñun ñu nekk Dakar rek xam nañ ñu ñu daj waaye ñoom ñu jógee fu sori ñoom bokk ci sectoriel yi deux mois après nous sommes vraiment c'est courage de Nous la ñoo leen di jaajëfal ñi nga secteur démérité wuñu dafa fekk ni nous, adam beaucoup de ci rek doy na déjà jambar voilà beaucoup ci rek euh, doyna donc ñi ñëwul ñep ñu ngi leen di jaajeufal di leen ñaanal du dara c'est juste reculer pour mieux sauter euh, jambar dawul dafa wuti doole ñu leen ñaanal prochaine édition yalla bu leen ci kenn ñom itam ñu ñëw ci jamm té waaw di ñaanal mbokki sénégalais yeeg mbokki éleveurs yëpp jàmm Ndiaga Fall kontaan na ah di ñaanal Sénégal rek waaw comme euh, ñu ngi jëm ci at moo xam ne ñu ngi ci début 2023 waaye ñu ci jógee fii ak at amaana euh, réew mi ci élection la jëm te gis nañ li xew ci Afrique waaye bu yàlla bum ñu gane si yàlla nañu ump yàlla di fi def jàmm rek waaw ki yàlla dogal mu nekk war a nekk suñu njiitum réew mu nekk ko. waaw ci lépp rafet daal fa tabarakallah kontaan naa bu baax a baax Baye Ndiaga waaw sama kii benn sama jale ah, kan, la ay ma bàyyi ma bàyyi associé Makhtar wala Birane wala wala wala ñëpp ah ñu sànni seen ñoom ñu tëj macha allah en tout cas ñoo ngi bëggee ñoo ngi bëggee vraiment bergerie bi Ndiaga amuñu fayu nit ñi. gën a man ci sama élevage mooy nit ñi sopp la te mënuñ laa gis nit ñi sopp la des fois ñu woo jotuñu la. te du dooma ma aadama mënut a mate fépp waaye ñoo ngi jëm suñu kéem kàttan waaw di di bàyyi wax ko ñooñu itam bu mbaax a baax a baax bu baax a baax a baax waawa kii c'est sama mon petit frère il s'appelle ma Makhtar Gaye <laughs> sama rakk la <laughs> gars yi dañuy wax sama suy sama suy sama petit frère la. <laughs> waaw ma macha allah dañuy sant yàlla avant tout di remercier aussi suñu waajur mais en même temps di remercier Siré parce que vraiment. c'est un bon associé. ne liggéey bi su eggee fii ñun daan dans la mesure ba ñuy ñëw mu nekk ci xar yi juddoo ci maîtriser ko donc ñun ba ñuy ñëw dugg nekk la la jamono ñëw ba ñu bokk lépp si man ñuy génne. di des. man ñun moom duñ ci dara. duñ ñun moom duñ ci dara à part jot compte boo gisee tey jii ñun ñu bàyyi suñu kër yi ñëw fii te suñu rakk la. ñu ne gone bu setee loxo rek mën naa waaw loolu moo waral lii nii. dëgg yàlla moom man moom bu ma duggee si Siré ba léegi nii. gis naa ci sam bopp sama seen bopp waaw du question que daf ma jox ay milliards mais conseil yu may jox ak nu muy bëgg ma mel noonu gis na ma ne maamam daan na ko ne booy ànd ak nit ki yow ngay am te moom amul yow ngay yokk te moom yokkul kon yow yaa baaxul te man gis naa ko ci moom Papis moom dëgëroon na ba façon bu ne mais bu ma àndee moom ba léegi nii dóoruma saagaw mais ay conseil tax na léegi ba fu mu toll nii même bu ma génnee dinaa dajeeg nit ñi du ma daw du ma sëgg du ma koñ léegi moom lépp nice grâce à waa di sant waa këram waaw waa këram mi moom wax dëgg yàlla ñun buñ fa duggee day mel ni ñun ñoo dëkk si kër gi waaw waa rakkam yi si moom sax dañuy ñëw ci xar yi ñoom dañuy génn mel ni xamuñu dara ci xar yi ñun ñii lañ gën a yaatal ak paa beeg maire ñu leen di ñaanal gudd fan ak wér ku la tuddee doom kooku bañ na sa tur fay euh, amaana yàlla dogal na tey moom moo fi teew waaye mës naa wax euh, jamono ji weesu ci lu yàggul dara ma ni man moom ñoddi naa bu mu jaam bi takk sama baat jox éleveur yëpp ñu ñoddi parce que wax dëgg yàlla naa la ko jox boo ko boo ko bëggee téye rek téye la fu mu toll ni kay takk naa sama bopp ndax nga nekk ci mbir nekk seeg say nawle nekk seeg say nijaay nekk seeg say mag ak say rak bu gëm naa ne buñ fi doon lim régooru xar yi moom auto rek LCS la ñuy wax waaye record turandoo fa tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla yokk ci éleveurs yi moom macha allah xam naa ni fi mu toll nii daal bu ñu doon lim bu ma jiituwul tam maa ci topp waaw waaye tabaarakallaa yàlla na ko yàlla defal ñëpp ah macha allah éleveurs yi aw ma seen fay ndax bañ nañ sama tur fay te tur bu neexoon sax moo tuddoon ay Ibrahima wala wala wala Mouhamadou waaye ay Siré turu tedd yooyu kon ki jël doomam tuddee la macha allah